moom la la loo ko dikk war nga koo xam Omar Cheikh ah, Omar fi may tëjee mooy anzala min man ko ba ko neex mu ne tus xam min maa in waahidin mu ne lépp ci menn ndox laa ko suuxatee man yàlla mu ne ko am kàttan boobu defar menn ndox produire la yii nga soxla yëpp ci menn ndox te bu ci nekk ba muy dispersé wu di dem yàlla awxaa ilayhi wax yu na ko ne boo demee ci kaani safar saf boo demee ci karoot leeral boo demee ci mango neexal boo demee ci limam farawaxal ilaa axiri yàlla damaa mën ku man defal mu ne ma ci suuf pepp boo xam ne ba muy mbëkk xam ngeen ne pepp dugub amul kàttan yu mbëkk suuf pepp dugub ni mu tuutee yàlla ni maa ngi doon wax nit ñi di rek te muy xikma dëgg xale bi juddu leen yóotu leen bi daayam nam ko soob génn yàllaa ko wax ci alquran ne min bayni farsin wa dammin labanan xaalisan saa'iran li shaaribiin yàlla ne na diggante sébéer ak deret fa la fàccee meew xamu meew amul ci wet meew amul ci wet boo dabboon léegi meew génn waaye yàlla ne ci sama yërmande su liir ne jot ci yaayam ma tàqale deret tàqale sébéer génnee meew mu sell su bàyyee mu delluwaat fa mu nekkoon min bay ni farsin wa dam min labanan xaalisan saa'iran li shaaribi yàlla ne maa mën ku mën def diggante sibli ak ñu der balaa fàccee meew mu génn sell neex alaaj maa nekk doon na ko wax vidéo bi ñëpp di ci te mooy ba pare ndugg buy ñëw day ndugg day ndugg loo ci xam bu dee jamono sedd lay dugg mais bu dee jamono tàngaay lay sedd bu dee jamono tàngaay daa la koy firi day sedd ci biir bu dee jamono sedd mu tàng te ñu liir nim nim tuutee nooy nepp mu mucc rek meew yéen am na boobu kàttan bi ci des su ko jàngal mucc kii ngi rëbb bi ñun ci doom yi ko fi jàngale mu mucc ah dañu waxante dëgg yi am na beneen professeur bu ko jàngale mucc waaw ba mucc bu ko yàbbi woon nag mucc du am waaye ku ko jàngale woon naa su kon nit man dafay jàpp foofu rek mooy jëm ñu wéetal yàlla juddu yóotu sa wenn yaay mucc woon ku ko jàngal mucc ku ko jàngal woon ci benn fraction de seconde kooku boo muñee tuuti àddina bi lu mu la fi nii wolof lay wax ne ki yee jox la ndékki waaye su la ne toogal añ am na ci kër yi war nga ko gëm yéen doon mu yee la jox la ndékki nga yow gis table bi fees tëb nee ngi nii saucisson ngi nii muro ngi nii chocolat ngi nii fromage ngi nii beurre ngi nii muro ngi nii euh, croissant ngi nii yëpp a ci table waaye ki la xëy tegal la bu la nee am naa monsieur ak ganaar ak ceeb bëccëg te loolu la ñu yàlla defal defal nañu lu ne ñu ci suñu bët kon bu nee ñu àllaaxira am na dig naa leen safara war ndax li ñu digoon yëpp def na ko indi ñu fi du kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla balaa ñu ñoo delloo xam yàlla balaa ñu koy xam. nañ wéetal yàlla balaa nga wéet ak moom ndax bés dana ñëw ñu wéet ak ni ñu wéetee woon ak ñoom moom balaa ñoo jub balaa loolu di am nag aw keneen nañ taxaw taxawaay bu mu am sëkk ci suñu digganteeg suñu borom Thierno Omar ila axiri daal mooy wéetalal yàlla ci kennam ci waaye wéetal yàlla ci biir jaamam yi wéetalal yàlla ci biir amam ci biir jaamam noo koy wéetale ci biir jàmm bi mooy kenn ku ne wa yu'ti kulla di fadlin fadlahu kenn ku ne la yàlla teg ci moom muy teraanga teg ci yàlla wax ne wa laqad karamnaa banii aadama maa teral ni ki yàlla teral na loo defati ci moom lu nu teraanga di nga am ak yàlla xel ci moom lu nu teraanga di nga moom a wax na ko ci démb moom la wala tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu ri'aa annaasi wala yuminu billahi wala bil yawmil aaxiri fa masaluhu ka masali safwaanin alayhi turaabun ila axiri aaya yàlla bu leen yàq seen jëf ci di ko wax shirk nag baale na ko naan shirk xam nga sax muy shirk yi ñu tuddee shirk yëpp du shirk am sëriñ du shirk am kilifa du shirk ba ci yii ñuy faye léeg-léeg nga dégg ko ne laa ilaa loolu suñu bopp Baay Faal laa ilaa illa laa faal ñu ne chirk la man du chirk nag yéen laa ilaa illa laa wax ko yàlla faal <laughs> yàlla xam kuy faal yàlla rasulullahi la xam waaye fexe na nga wax laa ilaa illa la jóom yàlla mi ngi leen dégg maa ko njëkk a defal conférence kër Moussa daa ngeen ko dégg laa ilaa illa laa jóom yàlla laa ilaa illa laa jóom yàlla daa ngeen ko dégg maa ko njëkk a defal conférence kër Moussa te conférence bi lenn rek a taxoon dafa ne man mën naa waxtaan ci diine te moom li muy wax wolof la mënu ko firi ci diine naa ñëw ustaas yi koy diinal ma dimbale ko ci ustaas yi lii moo doon conférence ki fi indi mbir moo la fi indi moo tax yéen daal seet ma lu gën bàyyi nga leen ñu si laa tax jabar bi def pour caaxaan jóob def dëkk jóob ñëw toj kër benn des benn pantere mu jël yëpp commencé miire armée ci la ko gaay fekk ñu miire ko kon ci la ko def benn jabar bi mu bagaas yi dem seen kër fa la seen bagaas mujj gi mu amaat beneen soxna bi indi ko li lay wan ñu ci yàlla banque publique la daan tabax ci taal yi ma ne ko Diop lu tax koy tabax ci taal yi mu ne mag ñi amul kàttan lu taxaw xaar bu ne day yëpp oto saabu euh, ciment ci njaga njaay ne ko dama dugal sax ko fa kenn du ko laal ak ñi Sénégal mën a sànni kenn ko laal fa la koy fekk defar baram bi dem yoon jumaa Kër Moussa bi moo njëkk a commencé jumaa ji pour ñu tabax te mu ne laa ilaaha illallaah doom ñi wax saa yi ne xaraam mu ne firnde nañ ko shirk ma ne leen di topp seen xol laa ilaaha illallaah kenn dugalul dara ci diggante bi wax bu jeex jóom njëriñ yàlla day wut ci mu amu ci soxla mais dafa bëgg nit ñi lay waxaale laa ilaaha illallaah ma ne leen mu ngi mel ni tey sa doom raam jëm ci fourneau na ne laa ilaaha illallaah téye ko mu ngay dem ci fourneau bi arraché ko. wala déet doo dégg ñu ne bi yem ko laa ilaha bi fiir na ko xanaa sirk du sirk laa ilaha illallah day wane ne gëm nga yàlla la ci topp nag la yàlla am soxla mooy laa ilaha yi ci des yëpp boo nee laa ilaha illallah wax bu jeex wax bi commencé na jeex na dugaloo dara yii ñuy wax yëpp ngeen baal ma barke sëñ Touba barke Serigne Babacar Sy da nga tudd barke jàmbur yow c'est tout court lu tax nga ne shirk sëñ na barke rahmatullahi wa barakatuhu aleykum ahla bayti bi yàlla ko sëñ Touba am na barke Alaaji Maalik na barke sëñ Babacar Sy am na barke maam Limaamu Laay am na barke maam Boukounta am na barke ñooñu nga tudd seen barke du shirk barke bàyyi ñaas bàyyi ñaas am na barke mais loolu du waat du shirk da nga tudd barke jàmbur barke Serigne Babacar Sy da nga tudd barke jàmbur après nag da nga cay teg li ñu war a xool boo ormaale sa sëriñ nag beneen barke sëñ Touba la ngay wax yëpp nay dëgg la ngir yàlla barke sëñ Babacar Sy dimbaleel sëñ Babacar ba la ngay wax nay dëgg waaye bari na ci tey ku la naan barke Chérif Ibrahima damay bañ ñu yóbboo ci man fekk ne kat ci bokk ci li ma parce que moo ko ci yóbbaale fexe ba ormal sa sëriñ ba moo tuddee sa sëriñ ku la gis naw la kenn du jaar ci yow nga yàpp sa sëriñ taal bu nekk nag loolu la war ittewoo waaye waroo ittewoo rek xel ci sëriñ bi xel ci sëriñ bi bay indil sëriñ bi tuuma yu def shirk dafa baax te dafa sew surtout ci xol la ko nit mën a xamee waaye du ci jëf yi ak pratique yi parce que bari na lu nit di jëf moo moo ngistal ñoo yem bari na lu nit di jëf nga foog ne ngistal alaay dem dafa daan ne bu daan laaj collecté léegi dana am ay maxtaar jo loo joxe mu ne cent cinquante mille yi ci bari fekk na mu ne ko yow naan ci dara li ngay joxe cent cinquante mille dama indi cinq cent mille bàyyi dafa yàlla loo joxe mu ne trois cent mille mu ne ko damay indi six cent mille Bassirou Diagne loo joxe mu ne ko cent cinquante mille mu ne ko en tant que grand sëriñ de Dakar indi trois cent mille noonu la ko daan toppee yooyu du gis te am na koo xam ne balaa mën a joxe dafa gis imam di ko joxe mu ne imam di ko du mën nag dëgg dëgg nag moom ci jàkk jël nag waaye du mën a mu mën na am na koo xam ne balaa def lu baax dafa gis Pape Samba def ko yooyu di ngistal xam nga luy ngistal ngistal nit rek moo ko mën a jugé borom def te yàlla tax nit a ko a jugé ak borom bari na ko joxe ci public bi yaakaar na ko joxe ci biir ne kookaa ngistal xam dimbale mu génn rek ngeen am tuuti yëngu-yëngu nga xanaa tey ba démb ko dimbale ko te kenn yëgu yàqoo yàq na ko ah barki démb laa ko fekk kër dimbale ko te kenn ñu ko tey la may def nii wala tey la may romb nuyu wu ma xanaa yàlla taxul woon nga def bala moo tax yàlla ne bu leen yàq seen jëf yi ci ko wax kon shirk yombul waaye jafe ngistal yombal waaye jafe wéetal yàlla yombal waaye jafe nañu wéetal yàlla ci suñu xol boobu la yàlla gën a soo wéetalee yàlla ci sa biir xol na faw mu feeñ ci sa jëf ci jëflante bi ngay jëflante nii ci dem lekk ci wax ci lépp lay feeñ moo tax hadis bii laa koy jeexale mooy bi yonent bi wax ne képp koo xam ne jaamu nga yàlla ba yàlla seey ci yow nga seey ci yàlla mu ne da nga mujj yàlla nekk sa kàddu ngay waxee kàddoom di nga ne mujj nekk yàlla nekk sa bët ngay xoolee bëtëm di nga mujj yàlla nekk sa loxo ngay joxe loxo yàlla di nga mujj yàlla nekk sa tànk ngay joxe loxo yàlla mu ne di nga mujj sa lépp di yàlla waaye loolu yombul la ca yóbbu nit nag mooy am kilifa am kilifa te nangoo déglu sa kilifa kilifa bu lay orienté dina jëmee ci yoon wi yàlla bëgg mooy kan nga mën a wéetal yàlla bañ ko bokkaale dara di nga la dérange wéetal yàlla daf lay la dérange wax bu rafet ak wax bu ñaaw la tàgg la xas ngay yemale waaw wala shukura da ngay yegg foo xam ne ci yàlla ak wéetal ko dootoo ci ki lay saaga ak ki la may un million ak ki nga un may un million ne la jërëjëf ak ki nga may un nga jox ko gannaaw mu daggal la saaga yàlla dañ koy yeb képp ci yow loolu nag wéetal yàlla rek ak mooy yóbbu rawatina jamono bii ñu nekk nga xam ne ki nga gën a defal njëkk moo gën a bon ci ko wax jamono bii ñu nekk ki nga gën a sonn gën koo defal njëkk booy wuññi say dafay ko ñaaw waaye booy wuññi ñu la gën a bay complet ci moom moo tax yonent bi waxoon ko ittaqu sharra man ahsanta ilay na nga ragal ñu yee dafa njëkk foofu ndax njëkk ni ci moom lay jóge kon mbokk yi yal nañu yàlla defal sutura maa ngi jégalu ci xëy na ma wax li lu blessé ni wala lu choqué ni lu ci mën a am rek nañ xam ne yéene wu ma ko woon lu sama jubluwaay ci illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiiqi Bachir daal yi ci am nañu mu ne bu ñu xasee jàng xam ne Quran na ko ñëpp doy lool ndax doy na sëkk mu di soxlay ñëpp kon nag comme moom la ñu mujjee maa ngi ñaan ñun ñëpp nañ ko doy lool ci barke alquran ci yiw bi yàlla def ci alquran yàlla ñu am ñun ñëpp jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatulah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 doon wax sànq rek yonent bi moom ku ko lebal muy mooy koy mooy fayal bopp waaye ñu dem ci saal bi mën a yóbbaale ay nit mais ñu fexe ba bu kenn dem oto bi boo amee benn place proposé te am na ñu fi ne peut-être amuñu oto ñi nga xamante ni tamit dañoo war a ànd ak seen i jaatigi pour dellu seen kër gi seen jaatigi nañ fexe woon ne ndox yóbbaale leen li jëm ci saal bi su fekkente ni am na ñu mun a jàpp lu ci war a mun a ranger léegi dafa des ñu war a ranger suba Euh, ñu dellu ci Seydina Ibrahima Diouf dina leen donc euh, defal déjà wu information yi nu muy demee ni ci war a def suba ni ci war a def léegi loolu euh, moom moo koy ñu ngi daal di ko ñëpp nag naan asalaamaaleykum wa rahmatulah